yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëta mu njëkk moom lam ca xëy fesalati maanaam li olof di wax lu def waxu lu ay di njàmbat mel ne ki fan yi moom réew mi wala làmb ji moom li ci nekk mooy coowal la nga xam ne mooy combat yi nga xam ne dañ koo reporté te ka ko def du kenn ku fël du kenn ku dul gouverneur bi nga xam ne nii moom mooy gouverneur de Dakar cooli nag mu ngi ne gadda fi mu nekk nii papa sow moom nee na mbir mi daal fi mu nekk nii ba mu ko déggee wala ba mu yegsee ci moom daa mel ne asamaan si daal moo fàqe koo ca kaw di daanu ci kawam parce que nag nee na mbir yi dafa metti ba yegg ci lool lool lool moom papa sow nee na tamit boo bëggee dégg-dégg autorité yi papa sow nee na leen daal li am ba des moom lii moom échec la ci yéen autorité yi nga xam ne yéen nu jiite te yore réew mi papa sow daal loolu la gis jàpp yamu ca nee na tamit état bi la mu war a def mooy dédommager maanaam daal ndàmp leen parce que nag mbir yi metti na nee na moom nag Papa moom nee na dund na loo xam ne lii moom maanaam metti na lool lool yamu ca de ndax nag nee na ay yoon a ngi lii di ko dal limb na ay combat yoo xam ne dal na ko ca digganteem ak Paul Maurice digganteem ak ka nga xam ne moo di Zos Lac de Guiers numéro 2 Ama Baldé ba ci Siteu nee na boo bëggee dëgg-dëgg daal maanaam yi moom li mu koy arriver bari na waaye nee benn nag daa bokkul ak bii bii moom mettit ga papa wax na ca ba mu maanaam daal na mu mette ci moom lool lool lool loolu mooy li nga xam ne ni moom moo di waxi papa Sow Moussa Ndiaye ma nga xam ne nag moom moom moo jiite école de Balla xëy na tamit di wax ca mbir yooya daa mel ni moom waxi papa Sow ja daal nee na maanaam dafa mel ni bokku koy dëggal Moussa Ndiaye nee na li am ba daal maanaam ñi nga xam ne nii daal ñoom ñooy mbër yi nga xam ne mbir mi daf leen a laal daal la ñu war a def daal mooy indemniser leen maanaam daal dimbali leen wala boog ndàmp leen da daa jàpp ne mbir ya na ba yegg ca lool keneen koo xam ne ni moom jàpp na ne mbir ya wala boog li am nekku fi gan muy Moussa Ñing ne na boo bëggee dégg dëgg daal maanaam diggante Mbaye Guèye ak Boy Bambara dem nañ ba war koo bëre midi daal lañu ñu reporté combat ba ca bis ba nga xam ne ni ca la ñu na waroon a bëree ñëw na ci tamit diggante Bombardier ak Balla Gaye numéro de ne ñaari mbëri soo déggee boo bëggee dégg dëgg Moussa ñi ne na lii ñu def maanaam combat yi nga xam ne ni reporté nañ ko ne na arrangé wu ci ñoom ñaar kenn waaye tamit dina tax kenn ci ñoom ñaar koo xam ne daal pare woo kon ma di nga gën a defaru waajal sa bopp am na koo xam ne tamit mu ngay xëy tey di indi ay leeral ci cas de force majeure ay wàllum dédommagement yëglikaay bi maanaam dalal na ko mu di ab spécialiste ci mbir moomu mu nga xëy daal di ca wax gouverneur ba moom gis nañ ko tamit ak aw photo mu nga xam ne ñu ngi ko fésal ci yëglikaay ba mu nga taxaw tiim ay kayitam daal di wax ne daal li am ba des daal nee na boo bëggee dégg-dégg daal maanaam bis bu condition yi matee daal wala boog bis su demee nii lu nekk nu génn ci su keroogee ñu xool nan la ñuy def wala boog mbir ya na muy amee Max Mbargane moom li am ba des daal nee na boo bëggee dëgg-dëgg moom fi mu nekk nii ñoom lañuy xaar lenn la ku leen ndàmp daal dédommagement daal lañuy xaar ndax mbir ya metti na ba yegg ca lool waa kër Balla gay ak waa kër Bombardier tamit xëy nañ ci yëglikaay bii di sunu làmb daal di fa wax Basiru gay ñu gën koo xam ci père Basi tam wax na de maanaam xëy na wax ca mbir ya ak na mu méttee ak loo xam ne tamit bu mënta nekk itam dañuy xam ne daal mënta nekk tafaa be ñu naan ko tafaa buuju ñu naan ko tafaa buuju moom di ko jege Balla Gaye numéro 2 moom tafaa buuju tamit xëy na wax ca mbir ne na daal ak lu mën a xew combat bi yàgg yàgg moom incha allahu rabbi tafaa ne na dina am te itam bés bu amee moom ñoom la ñuy am du lenn lu dul ndam Père Diaw wala boog Aline Diaw ñu gën koo xam ci Père Diaw moom tamit boog kii ñi nga xam ne nii daal ñu jege Balla Gaye da la mu xam ne daal nee na état bi ni li mu waroon def daal fexe fexe fexe ba sauver lamb ji rawatina nag combat boobu ñeneen ñoo xam ne tamit ñoom ak ñoom ñoo seq bés ba muy waa kër Bombardier mbay booy moom la mu xëy xamle moom nag moom mooy bombar Bombardier mbay booy daal nee na foo xam ne nii moom ñu ngi fay waxee nee na balañ faa wax lenn wala ñu ko fay kaas nanu wax wér yaram ba pare la mu gis daal nee na la santé avant tout mbay booy loolu la gis Moussa Loss tamit di bras droit wala boog di ku jege Bombardier nee na daal li am ba des daal nee na daal fi mu nekk nii moom a ah loo ci mën a dégg daal defaru rek te itam daal di xaar rek parce que nag jàpp nga ne dara ñàkkagun ko wala dara demagul Pape Sylla tamit président école président écrit ba nga xam ne fa la Bombardier na nekk tamit xëy na daal di wax ci itam mbir ya ak li nga xam ne nii ñëw na di ca leeral lu yaatoo yaatu les arènes bu nu fa demee tamit mbir yooya daa mel ni nag renvoya mbër ya nga xam ne ni daal ñoo ko dund mbër ya yëglikaay bi xëy na fesal leen moo xam Bombardier la Papa Sow rëg-rëg ki nga xam ne moo di guy gi wala Siteu Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi xëy na tey dalal leen ñoom itam daal ku ne wax nga la nga xalaat Papa moom nee na boo bëggee dégg-dégg daal ki nga xam ne nii daal moom moo di président Macky Sall la Papa Sow nee ko ci les xoolaatal ñi la ñi lay xelal ak di la xalaatal xool leen bu baax a baax a baax yan genre nit lañu ndax nekkuñu ñoo xam ne nii daal dañ lay dugal ci guta loolu mooy waxi ka nga xam ne moo di Papa Sow yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci lu mel ni ki noonu adversaire ba nga xam ne nii nag moom moom moo di Siteu la mu xam ne daal nee na mbir mi moom du ko jiñ kenn Siteu nee na du kenn ku dul CNC nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk daal yore làmb ji Siteu nee na responsabilité bi ñoom la rëg-rëg moom la mu gis nee na daal li am ba moom maanaam wér yaram daal moo ëpp importance lu mu mën a doon rëg-rëg moom gi maanaam gis-gis boobu la gis ka nga xam ne ni beneen gis-gis la am moom moo di guy gi guy gi nag moom ña xëy xamal wala boog ña mu xëy di waxal nee na ñi nga xam ne nii daal ñoo fi nekk ñu leen di wooye ay ténor mbër yu mag nee na tamit dañoo war di maanaam boog dañoo war a bàyyi di wax ngir seen intérêt bopp kese nee na bu ñuy wax ñoom dañoo war di wax ngir intérêt yi làmb waaye moom la mu gis daal nee ñoom ñoo ñuy wooye mbër yu mag nee na bu ñuy wax daal seen bopp kese kese moo leen ñor bu dul seen bopp duñu waxal keneen loolu loolu mooy gis-gisu ka nga xam ne nii moom moo di nga xam ne moo di guy gi ma nekk école de lutte Mor Fadam Bira Sène moom ma jiita làmb ja mu nga xëy di wax ci mbir yooyu ci les arènes nee na daal boo bëggee dégg dëgg moom bilan bi ñu am nee na daal bilan la boo xam ne daal boo boo xam ne daal mbégte am na ci maanaam bu satisfaisant la loolu mooy waxi ka nga xam ne moo di Bira Sène nee tamit décision bi nga xam ne moo am maanaam ñu aj làmb ji nee na décision la boo xam ne bu saas la loo xam ne laal xel nangu na ko loolu mooy moomu nga xam ne am na keneen koo xam ne ni tamit xëy na di wax mooy ka nga xam ne ni moo di Ambroise Sarr ba mu waxee démb ci Bombardier tey tamit ca Balla Gaye numéro 2 xëy ak ay erreur yoo xam ne dal na ko ci ay combat muy ñetti erreur yëglikaay bi ñëw na tey dalal Ambroise Sarr mu xëy di ca wax moo xam digganteem ak Eumeu Sène la ñaari yoon yi ñu bëre ba ci digganteem ak Bombardier yëglikaay ba mu xëy tey di ko dal rëg-rëg moom yëglikaay bi mu ngi ñuy xam ne daal maanaam ak ñibbiseem Sénégal cinq heures di matin loolu la ñu yëglikaay nga xam ne moom moo di les arènes xëy tey di nu xamal lu mel ni ki noonu yëglekaay bi nga xam ne nii moom moo di les arènes tamit bu nu génnee ci wàllum làmb ji nag léegi ci jeux olympiques ya la ñuy ñëw Adama jaata depuis la vingt cinq juillet mu nga fa nga xam ne moo di Tokyo di waajal yëglikaay bi nag xëy na nu xamal ci ay xibaar daal nee na le 6 août bii nu jëm daal maanaam juróom benn fan ci weeru août bii nu jëm ca la Adama jaata fas yéene wàcc nag ca tapi ba wan nan nu ko ci aw photo ñu koy ñaanal moom tamit ndam ca la nga xam ne nii moom la nekk ca Tokyo mel ni kon daal loolu moo fi dikkoon ci yëglikaay yi waaye man fa may delluwaat mooy wax yi guy gi loo ci mën a dégg daal la mu wax jar naa bàyyim xel ndax nag mbër yu mag ya ca kaw di ay VIP nañu sóor ni mbër yu ndaw yi ci suuf itam ci làmb ji lañ bokk te olof a kay wax maam gàtt na waaye ci jur gi la bokk booy wax wala ngay plaide ak foo ko mën di defee del sóoraal ña nga xam ne nii ñeen ñépp yéen a bokk milieu bi te itam boo bëggee dégg dëgg boo demoon tey Parcelles Assainies mbër ma fa gën a ndaw la ne ca xel maak bopp ba mooy daa bëgg a nekk Modou Lo ëllëg ka nekk Fass Gris Bordeaux lay reefe ka ca Pikine Eumeu booy Boy Niang wala Ama Baldé Bawal Tafatin ka ca Géejawaay Balla Gaye de wala Lac de Guiers de mbaa guy gi ka ca Caaroy Rëg-Rëg ak ñu mel ni ki ñoom ka ca jàmm gën tamit c'est tax kon boo bëggee dégg dëgg daal la guy gi wax jar naa bàyyim xel plédé bi moom daa war ba ci suufa suufa suufa suuf